asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokku Sénégal mbokku adduna bi maa ngi leen di siyaara te di leen nuyu ma bugg leen wax suma naqar tey dañu ne marmet dina bax yëngu di bax di yëngu waaye boo teyloo du tuuru man nag suma xol day bax suma xol dafa jooy ñu baax ña léegi Sénégal yi ñu gën a miin te ñu di leen tudde tudde bu uppa tudde bu bari bari bari ci ñoom lay commencé suma xol jooy ngir ñooñu le suma xol jooy na alxaaji Malick si ak lu mënti xew même bu ñemewuloon xeex ci zahiran mu ngi doon xeex ci baatinan suma xol métti na te mu ngi jooy Ahmadu Bamba ki nga xam ne dafa taxaw xeex jaxran fas à face ba ñu déplacé ko yóbbu ko fi ñu wax Mayumba ci Gabon ci jamono ñoom Samori Touré yàlla jële ko fi ñu wax njole moom Samori Touré maa ngi jooy ñu mel ni Serigne Fallou Abdoul Ahad maa ngi jooy suma góor ga ndeysaan ba ma jàppee ci loxo ñu di ko Abdoul Aziz Dabakh mu ne ma tey nag dama lay ñaanal ñaanu xaas gannaaw loolu li maa ngi jooy suma góor gi kunta kunta ba ñu demee mu di ñu nattali na mu doon tabaxee batimaam amul woon benn géomètre amul woon benn entrepreneur amul woon benn architecte moo décidoon di liggéey bâtiment ngir xelam maa ngi jooy kilifa yii dafa am nag temps en temps nawet léeg-léeg mu jural la lu baax waaye léeg-léeg mu jural la lu bon waaye suñu nawet bii nag mboq yi mu jur yi mu indi rafetuñu baaxuñu mooy ñi ñu yaakaar tey ne kilifa diini lañu ñu war a jàngal nit ñi lan mooy jub ñu dangal senegaal pantal ko ndox bu baax bi di tuuru ñuy garder ndox mu baax bu bon bi maanaa ndox mu baax bi mooy sotteku di tuuru di dem waaye ndox mu bon mi des ci kaw nag mooy suñu kilifa diini yi su ma xol jooy ne tey bi ma jikloo mbiru tribunalu senegaal yéen kilifa yi ngeen ne diini ngeen toogal ngeen xam ne caay-caay moom lañu teg ñiy bandi ñoo nekk di ko jéem a dundal mooy caay-caay ci réew mi ngeen farankulaay ku nekk xulli botam yi toog fa mu toog boo seetloo fi ngeen toog tooy na tooy na maa ko wax maa ngi tudd Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine nag bu leen yàkkamte dinaa leen jox suma maalumaat nu ngeen may xàmmee bu baax a baax ma ne yéen nag ñi doon jàng ci bitim réew ngeen ne xam-xam ngeen doon jàng dañu yaakaaru ne bu ñu leen yónnee bu ngeen jàngee bu ngeen ñëwee da ngeen di yee réew mi wala dimbali waa réew mi waaye yéene ñàkk jom ñàkk fulla ak fayda da ñëw muuru comme bandi yi ngeen nekk ci seen wet di leen dimbali dama ne yéen da ñëw muuru nekk bandi yu muuru ay golo yu muuru toog ci wetu ñuy muuru yéene ñàkk jom arabisant boo gis rek sëriñ la mu ngay muuru xam ngeen li ko waral mooy liñ leen di indi ñu ne ah, ah, hadiya hadiya hadiya ma ne yàlla bi mu wax ne faqaddimu bayna yadayhi najwatan na ngeen indi ay ndimbal ci yonente bi fekk yonente bi day xëy nekk ci karam di xamle di jàngale di jubante ay nit waaye du ñii toog nga xam ne sax manu jubal dara ci àddina toog di muuru di jël xaalis di ko lekk yéenay wuyu te yéenay bandi yéenay ñàkk jom cim laanatulahi aleykum yal na yàlla alak leen maa wax bi ma seetee mbiru tirbinalu Sénégal tey doomu xaj bi ngeen bal ma sàgg bi waaye nag alxuraan moom mooy sàgg dama ne Qur'an day sàgg Qur'an day xase Qur'an dafa jëppi nit ñi Qur'an mooy taxaw sàgg nit ki fa mu gën a bone alquran sàgg la fa doomu xaj bi doomu bandi bi mooy Alaaji Juuf waxoon naa leen naka la juddoo waaw waaw boulevard Bour Coumba Ndoffène Diouf ah buur Kumba Ndoofeen Juuf géwél la woon nga ñàkk jom man suma yaay Juuf la sant waaye du jaam am na juufen yu bari du ñu jaam am na géwél yoo xam sax duñu jaam waay yow ci jaam nga juddoo ci ngay deexee dinaa la wuutal benn bés spécial càcc bi nga doon jàcc ci biir Kaolack te ma xam ko yaay doomu mbaam mi te yaay doomu xaj yow Alaaji Juuf dina walba te tëgg ci yow benn bés ak sa boñ yi mel ni boñu dàngin cam ma ne loolu taxul may wax kilifa yii ñu wax ni kilifa diini lañu du kilifa diini kilifa seytaani ngeen rajim bi laa wax yéen a gën a bon sax formation war ngeen taxawu tey jii ñuy atte atte fox atte caaxaan ci biir réew mi atte bi ngeen adopté léegi ba mu ñëwagul ci Sénégal lu ñu naka lañ doon atte ma ne ba islam ñëwagul sax ci biir réew mi naka lañ doon atte suñu maam ya bi suñu maam yi nekk ci ndàpp nekk ci ceddo naka lañ doon atte kenn ñemul sosal kenn foo tooga ñu rey la suñ maam yooyu le seen attewoo ci fen ak ay banditisme soo ko defee ñu rey la bola l'islam ñëw nit da ngay dëggu moo tax yàlla indi ñu ci kaw suuf xam ngeen ne lii di Macky Sall indi ci réew mi war ngeen jàpp Macky yeewu ko dëgg bopp bi wartul dox ci kaw suuf si ak ji ànd ak moom ngeen di ma Ismaïla Madior Anton jom et ay banditisme hé yéen tey woo ngeen ma ngeen ne Amadou Ba juuf def ko recevoir ma ne Amadou Ba na ko junni junni nit recevoir du seen problème maa jëkk xam Amadou Ba Abdou Diouf Abdou Diouf sax mën wax fan la ma xamee waaye tey ma wax leen ko Abdou Diouf moom ma xamee Pontinoir Abdou ba nga ànd ak ñoom Abdourahmane Sow nga nekk premier ministre nga ñëw fekk Mariam Ngoobi moo nekk président gu Congo xamoon nga ku ñu wax Yombi Opango oto yooyu ma gaare keroog ba ñu lay teeru ci aéroport yombi moom a ko joxoon yombi moo mujj yor réew ma nekk président de la république du Congo waaw nga ànd ak sa délégation jóge Brazzaville nga ñëw Pontinoir ñun Sénégalais yi ñu recevoir la nga dajale ñu ci benn saal ku nga di ko laaj fan nga jóge am na séeréer lébu bu la tontu keroog borom sikkim su rëy sa yor kol maawoo posé nga ko question ci salle bi ngan ko ba yow mi waa fan nga man ko ñi nga dajale ci salle bi waa fan lañu te yow mii kay ñëw fekk si ñu yow lañu ñu war laaj yow waa fan nga waaw borom kol maawu bu moo la ko laajoon man mi maa yoroon kol maawu ba am na ku ñu wax Assis mbay mu ngi nekkoon ci suma bet asis mbay nag yéen waa Touba xam ngeen ko mooy ko doon financé ci collectiru bàmmeelu Touba yi jàppante woon naa sax Assis mbay ndax maa ngi ko kontoon suma mag suma pàpp dañu waxoon benn bés ba ñu dem ci affaire collecteur bàmmeel yi ak nit nit yi di génn àdduna ñu leen yóbbu Touba wala leen yóbbu Tiwaawan nit da ngay jóge sax dee ci Riyad wala ci Jidda ñu dencal Riyad wala ci yàlla moo xam nit ki fu mu génne àdduna nañ ko fa denc boobu beneen wax la moo tax bi ma déggee ñu di wax affaire Béthio Thioune ma ne ndeysaan mbiru politique tegu na ci loolu le Béthio Thioune wane fa ñu ko war a suul wax ku waa karam wax ko taalibeem ya muntaqa jokk ne day wane wilaaya day wane martaba ak bas dof boobu nga xam moom gabung laa ko xamee mu àndoon ak Moustapha Lo ak Fallou Bousso ñu dal di jàpp nag jëkkëru nit ñi baayu nit ñi ta sëriñu nit ñi ñu ne dañ koy denc par force yi ci Touba luñ ci jublu nga récolter adiya adiya adiya boo beneen waxtaan la dinaa ci ñëw benn bés léegi li tax may indi wax jooju mooy affaire Assis Mbay Assis Mbay li mu def ci bàmmeelu Tuuba yi daanaka bari na ñoo xam ne ñi defuñu ko fa Abdou Diouf nekk ci biir salle bi yow boo ma déggee ñoom Doudou Diop ñoo nga fa nekkoon am na sax ku ñu waa Duudu Njaay ñëw na fa moo nekkoon directeuru banque centrale bu Pontinoir Duudu Njaay boobu moo nekkoon nag rakku maam góor gi Njaay ki doon bore ci Faas suñu mbokku lebu boobule yooyu détail la benn bés dinaa ci dugg dama bañ yàgg parce que affaire Amadou baax moom lay wax Abdou Diouf Abdou juuf politique dafa sew nguur dafa sew yow na naka jëkk nekk naa Sénégal musuma jot ak yow musuma xol yow musuma wax lu dem ci yow seen waa kar sa soxna madame Elisabeth boo ma déggee man maa Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine maa ngi lay nuyu yéen fabi yéen yéen yaasin yéen yëpp maa ngi leen di nuyu li ngeen def nag yéen doom yi rafetlu naa ko melu leen ak doomu Abdoulaye wadd ablay wadde yàq réew mi ngeen di ko xaccoo encore da ngeen toog jàpp seen amgen gàcca ngaalama yéen am ngeen dignité am ngeen personnalité léegi ci tay Abdou limo wax ne politique dafa doy war moy ne na nga xol fa nga ak fa nga mujjé xam nga ni yalla bu la joxe photo yu Sénégal tay du yow mi ya ko warona ndax bu ñu commencé ci mbir ñoom Jean Collin Jean Collin ya mu def e ak kilifa yi àndoon ak Senghor ak ñoom Babacar Bax waa Kawlaaxu ba waa Kawlaax ba te waroon a yor poste bi ak yeneen yoo xam ne xew na ci biir yoo xam ne moom nga tuddee secret d'état man nag du ma wax secret d'état secret dund lay wax mooy moom la wax wax asirul xayaat waaw moo tax yenn yi jarul di gëstu abdu ba tey maa ngi delluwaat ne suñu maam suñu nijaay yi suñu mbokk mooy Léopold Sédar Senghor ndeysaan xaw a tuuti ci portugais sax waaye sénégalais xamuñu loolu le Léopold def na liggéeyam rafetlu naa ko ñu bari rafetlu nañu ko dem na xam ne mënuñu konte ci lii mu ne damay bàyyi nga jël poste ba waaye poste ba la fa xew yépp xam nañu ko jàng nañu ko liir nañu ko lañu la ngeen wax ak la ngeen waxul yépp capté nañu ko xam ko denc ko ci sàkk li ma mitti rek ci départu Senghor lenn la bi Senghor di départ nekkuma senegaal loolu mittiwuma li ma mittee bi Senghor demee nag am na xew-xew yoo xam ne xew na ci seen diggante dañu humilier Senghor bi ñu ko humilier mu dem jooytu suma benn kër goro méttit lu ko wax ko abdou senghor joxon na la rendi ci sama kër goro bi pour nga fekki su ko fofule. jaru laq laq moy madame ay jow président bu cameroun germaine ay mo nga président di la xaar ak senghor ñëwula woon la man yam xam nga li dess yi xew ci diggante bi yëpp xam nañu ko waaye loolu taxul ma jox léegi Germaine yal ko yaaral xaral àjjana ak docteur Fatimata yal na leen yàlla xaral àjjana ak président Ayjo ba ma nekkee Arabistan jóge Caire ñëw di jàngal man di jox ay cours ñom malam garaba ñoom bakara ci cameroun ci la xamé président ay djom mu recevoir djom dama daan jóge égypte ñew passé suma vacances ci cameroun di joxe ay cours ci langue arab aw sayyat pour yek ñep wa fumban même dem naa ba gisi roi de fumban ñooñu le ñoo tax ma am président Ahidjo bi Senghor génnee jóge ci nguur gi dafa dem foofule ñu buggoon la gis président Ahidjo ak Senghor ñu bugg la gis waaye nag am na la fa xew demuloo fa fa ma nekka laa nekk di ko yegg di ko xam am na sax dof bu nekk foofu ci yéen du waaw doomu marché bi mooy Moustapha ñas dem na sax ci kër googule di ñu fa jaw homme d'affaires yu bari ci Sénégal yegg nañu boobule jaw suma goro bi madame Ayjo daf ma woo mu nettali ma lépp Moustapha la wax ci kër ga yegg naa ko Moustapha boo xamee ñoom doctor Ahmad waa Syrie yooyu le man maa la boole ak ñoom ngay def affaire ak ñoom nga ne nañu ma ko nabb nañu ma ko musuma boole kenn ci àddina maa la boole ak Guillaume sooro bu Côte d'Ivoire te mu nekkoon président ngu assemblée mu nekkoon foofu le premier ministre maa la boole ak Guillaume sooro ci hôtel bi ñu war Warwick ci Champs-Élysées bu Moustapha maa la boole ak docteur Ahmad docteur Ahmad Concorde bi muy daanu ci France avion bi ci kaw hôtelam la daanu maa jël docteur Ahmad bool la ak moom ñu dem añi ci seizième arrondissement Moustapha bi ma amee suma délégation yi ñu jógee lii bi ay naar ñëw naa bi affaire étrange ci sa bureau jox la naar yi naar yi la xam moom la ñu jox xam nañu ko xam naa ko mosuloo ma boole kenn ci àddina ba nga nekkee di wirdal Kabila ngay wirdal nit ñi ñoom Martin Bongo foo toog nga di leen wirdal yow sëriñ moo tax senegal bi ñuy waxee ne yaa ngi liggéey ci pétrole dama tiit maa la xam na nga sutural sa bopp ba nga demee ci kër dem ay jow di ma fa jaw di jaw ñeneen ba nga fay jóg fa nga toogoon ci sa taat bi foofu lañu ma wooye téléphone ma wax ma ko daal ñàkk jom mais loolu taxul ma jom Abdou loo nar a traité ak nguur gi na nga xam ne dem nga ci jàmm nit ñi bàyyi la dégguma benn plainte bu la topp bu dugal sa bopp ci njaaxum kon a gaañ li ma nar a wax mooy mbiru tribunal bi ngeen nekk di wor worlu di monte di wàcc ñi ay bandi lañu ay wuyu lañu na ngeen taxaw teg dëggu yàlla mu jeex ñi ñëpp yoon daf leen rey moo tax yéen ñi jàng fiq droit islamique maa ngi di ñaan ngeen dellu ñu mën a teg ñi ci yoon atte leen dox seen bopp yi mu jeex kon gaa ñu baax ñi maa ngi xaar seen tribunal bi lan moo fay xewi ma door a waxtaan ak yéen kon gaañi maa ngi leen di siyaara di leen nuyu di leen wax ni asalaamu aleykum ورحمة الله وبركاته كدنو اك ينتي مو الشيخ عثمان بي تاجو دين ين لاي ديكلو پور نين پاري چي سيني چاخان يي نيو نكيني نين توق دي لين قول سنغالي امتو نيو فول امتو نيو فايد جان نين